auzu billahi mina sheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim allahuma salli ala seydina muhammad wala alihi wa sahbihi wa xadimihi wa sallama tasliman auzu billahi bismillah in waliyallah téléspectateurs yi nga xamante ni a baaxoo suivre seen émission bi ci biir Dakar People ñoo amaat mbégte tey dellu ci beneen numéro seet si kenn ci umma islamiya bi waaye rawatina ci ñi nga xamante wax dëgg yàlla jaami yàlla lañ yor itam kurus di ci ñaanal jaame yàlla saa su ñu gën ko a waxtaane waat ak moom lenn ci kon Serigne Cissé ñu ngi lay nuyu di la ziar waaye di la dalal ci biir émission bi bëgg a waxtaane waat ak yow lenn rek ci xam-xam waaye balaa dara rek nga nuyoog askan wi nga xamante ni soppe yeeg am di jàmm yeeg macha allah kenn ku ne di la déglu. bismillahi rahmaani rahim. laa xawla wala quwwata illa billahi alil asim rabbi sarax li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli subhanaka laa xilma lana ila ma xalamtana innaka anta alimul hakim mbokk yu baax yi ginnaaw bu nu sante yàlla julli ca sang-sang ya muy seyduna muhammad ñoo ngi nuyu ñëpp di siyaare ñëpp di leen nuyoo nuyoo bi gën a sakkan na gën a yell làmboo jàmmala xéewal muy baatub asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa aleykum salaam wa rahmatulahi taala wa mu sëriñ Babacar fi ma bëgg a tàmbaleeg yow waxtaan wi rek mooy dañuy gis ci jamono yii bu ma la doon laaj ne la tey jii ana tey koo xamante ni dafay nitu diine lañ ko mën a jàppee molbatiku di def ay waxtaan di soññ askan wi di soññ àdduna ci ni ñu war a toppee yàlla ci diine molbatikoo am yenn kàddu yoo xamante ni tegginuwul génn ci làmmiñam ëlbatiku nag ngeen bokk kër duma ko nëbb bu ma la ci doon laaj kooku tey jii ana ban gis-gis wala ana ban dégg-dégg nga dégg kàddoom yooyu noonu loo ñu ciy wax. man Serigne Cissé mu Serigne kër si damay faral di wax ne képp koo xam ne danga woote sa bopp ne islaam moo la tax a jóg rawatina nag comme ni nga ma ko junjee sunu xarit la sunu soppe la muy Iran Ndao muy lan ci wax joo xam ne xew na jamono ji ñu toll muy ci mbiru alal man damay faral di wax ne képp koo xam ne borom bi tuddee na la ngay boromu barke rawatina ngay boromu xam-xam rawatina ñu yaakaar la ci diina am na yoo xam ne bu la fekk si woon sax sa toogaay nu la fekkee nga toog dara waru ko sensé wu rawatina lu mel ni koom-koom muy wàllum alal ci lu mel ni damay wax ne pouvoir benn pouvoir gëntu rëy ñu ne Iran Ndao moo yor daaray Serigne Babacar Sy man gisuma lu gën a rëy loolu man Serigne Cissé mu Serigne Babacar Sy lu ko gën a màggit gisuma ko kon ak lu mën a xew ci jamono ku fekk nga toog Iran mu ne la bayka ah président de moo la jox lii waaye un milliard la bu la fekkoon ngay joxe dërsu da ngaa war a continuer ñoom ñu toog xaar la ba sa dërsu pare. ndax yow yaa gën million yaa gën milliard ndax li yori liy indi milliard mu ngi ci sa loxo kon buñ lay joxee ci liñ dégg nga wax ci sa salaam muy deux cent millions yow Iran yaa gën deux cent yaa ëpp deux cent millions te liy joxe milliards yi mu ci yow kon bu la fekkoon ngay jàngal xale yi sax ci daara ji ñu ne président a yónnee ci yow da ngaa war a joxe sa dërsu ba pare doog a continuer te gis nga jamono jii ku moytuwut euh, woy politique yeeg yeneen ñi moom dana bari ñu bari ñu la jàppoon weddi la ndax lan ngir koom-koomu àdduna ndax kenn ku mel ni tunkara nekkoon na fi des tiifi ci lu mel nii lañ ko def gaa ya daggaat wax joojo di ko di ko di ko publier chaque jour Iran nag benn baat rek moo dis ca wax ja ku représenté daaray Serigne Babacar Sy nekk télé bu ni seen tiifi àdduna yëpp di la déglu ci sa xam-xam bu sell sa xam-xam bu rafet ca na nga koy joxe nga ne biñ ma joxee deux cent millions yi man dama juutu wax jooju rëy na ci Iran xaw ma nag lu mu ca namm xaw ma fu mu toll ci moom ba mu wax ko waaye jooju wax du waxinu kilifa waxuñ na ngir dàgg sante li taxit ñu wax mooy ne pouvoir bi mu yor ci àdduna ku ko ëpp pouvoir amut ndax moo yor daara Serigne Babacar Sy loolu rek pouvoir la ñi ko yaakaar ci doomu aadama dafa bari ñi jaar ci ay loxoom bari ñi koy déglu ci seen dina bari kon am na yenn kàddu yoo xam ne buñ koy déggee ci kunu yaakaar day jaxase ay xel moo tax ñiy wax na nañu seetaan ni ñuy waxee ak fu ñuy waxee ak fañ koy waxee ñu ko defee rek borom bi mën naa def tawfiq Cheikh Talla macha allah mu Serigne Babacar amati solo ndax euh, li tax ma sañ sañu laaj la question boobu mooy damay damay farataal ci say émission wala ci say jotaay wala ci say kàddu di dégg ngay wax ni wala xad karam naa suñu borom ak cër bi mu jox doomu aadama ba tax yow nga jël cër boobu delloowaat ko doomu aadama ku toll ni Iran li mu représenté ci diine li mu représenté ci tarixa cheikh li mu représenté waat ci biir kër Serigne Babacar radiyallahu anhu kon tey ji am dund ak sëriñ Abdou Aziz Al Amin mu lay wuuf dund ak sëriñ Cheikh Tidiane si Al Maktoum dund ak maam Abdoul Aziz si dund ñooñu kilifa yu baax yooyu am na loo xam ne waratul fees sa bët te olof day wax ne nit ki la ko dimbale ba mu dem saa su ne nay dëggal ne lii ma dimbale ndax damay faral di wax ne bu dee ci barkeeb diw ngay am dépense chaque jour boo xëyee ka tax ngay am dépense war nga di ko jaajëfal. ndax Iran donte ne Saalum Saalum la comme ñun ñëpp xadara malikiya lañ ko xamee fala yaroo fala jànge fala màggee fala defee lépp ba borom bi dogal ci lim dogal ci moom nag kon yooyu ku ci yaru màgg ci lu alal bëri bëri bëri bu la fekkoon nga sukki sa sukki woo bu ko bu ko ba ci beneen position di feeñaat ca biir biir alal joojee ndax xaalis du dara ndax yow la yore xaalis yaa ngi ko yore mm-hmm. kon am na ci loo xam ne Cheikh Tall daal matewu ko. Mm-hmm. jërëjëf sëñ Cissé amati na solo xam naa ne buñ ko toppee dinañ ci xoos day gën a doy rek waaye daal ni nga ko waxee am na solo waaye sëriñ Cissé ma bëgg benn mbir ci xam gu ma xam ci loo xam ne maa fekke bala may dugg ci yeneen yi muy sëriñ Cissé nit jóge na feebar tawat dem hôpital nu xamal ko ni ko moom day faatu mu di la déglu ci rajo. bi mu ñëw ci yow man maa ko jaay ticket ba mu yegsee ca yow ñaari junni ak ñaari téeméer mu dugg toog ma jënd butéel jël butéel boisson jox ko muy naan ba nga ñëwee ba gis ko langa ngeen waxante tey jii tembe tembe tembe mën naa ko woo téléphone mu seede moom ay kàddu la nga ko saafaraa kurus la ñaan la turu yàlla la wala lu mu doon man loola laa bëgg a xam. Cheikh Talla man damaa gëm ne booy bàkkoo alquran te alxuraan deful benn jeexintal ci yow la ngay bàkkoo des na ndax man dama faral di wax ne réew mi ma toll di bàkkoo sëriñ ba ba kër Si lépp lu ma wax preuve la war a doon ci sama diggante jaamu yàlla yi ndax jëmm jooja bi muy ñëw problème mu biir la doon jàmbat mu nga baye ko roosoo kuppantum bi mu ñëwee ne sama biir bi dem naa ci fu ne ma ne ko ñeenti nàkk rek laa lay jox boo ko jëfandikoo borom bi may la wér yàlla defit bañ koy liggéey ñu liggéey ko ci alxuraanul karim ba mu ko jëfandikoo nan ko ko waxee borom bi defal ko tawfiix te dañ ne woon ko lii la desee décédé bareetul waa ci kàttanu borom bi mi nga xam ne moo wàcc ci téere bi nëbbu ci ay mbiram ci ñi ko xam ak ñi ko jaarale sa la ñu dox ba borom bi defal ko tawfiix bale ba nga ko jënduloo woon ak ba luy sababu bale ba bale ba damay gis ñu bëri ñuy ñëw ci yow dañuy indi bale ak siwo lu waral loolu. waa xam nga bale kenn ku ne xam na ne day raxas ab maanaam day génne ab tilim mu am yenn xeetu sangat yoo xam ne bu nu koy liggéeyal nit ci bale la nu koy liggéey bale boobu nag buñ ko si xasee liggéey ba pare kenn dootul ko bale buñ ci xasee ba yow mi nga xam ne li la li nga namu leen rek nga ci bëgg ñu tudd ko ci bale bi ba pare deferee ko sangat googee boo ko jëfandikoo li des ci sa dund sun borom tawfiix rek la lay defal Seex Taala waaye nag bale booba kenn dootul ko bale te danga nekk nit ku ñuy dégg ci saahir ak ci baatin da nga nit nekk nit koo xam ne ku la jéemalati ci pexe mu mën a doon borom bi da lay defal tawfiix moo waral euh, li ñuy wax baatin dafa nëbbu rek waaye ku ne la bale nit mën na cee defar aajooy nit boo ko waxee ku gàtt xam-xam danaan bale de man xaw ma lu dul bale kër te fekk bale ngi defee jëmmi doomu aadama. may si man si si loolu damaa jaaxal ndax man damaa jàppoon ni bale moom bale rek la mën waaye bale moom bu demee bay saafara yi tey doomu aadama kon fi mu ne. xam nga Cheikh Talla euh, man dama di doomi Saalum Saalum benn jamono benn waaye daf ma woon na ma sëriñ Cissé nit ku bëgg am doom est-ce que mën nga koo defal mu am doom ma ne ko man fa ma dëkk ca Saalum kii sax bëgg a jur doom mu te ñu fexe ba mu jur doom waxuma la ak nit kon nag fexe nit ku doonul dara wala ki gàllankoor yu nekk ci yaramam ndax ba léegi mën na koo dindi ak mënu koo dindi baa ngay weddi sëriñ Cissé ñemal Serigne Cissé boo ñemee nag gisu bu la neexee fu Serigne Cissé waxeeti nga ne kii moo ñemee yàlla man li ma yor dama jàng donnu Serigne Mansour borom daara ji fëgg sama bopp mi na ma réew mi ku fi jaaxle dana la woo. lee waral ma am sañ-sañ dama seetaan sa benn vidéo commentaire bu ne ci suuf bu am waaju commentaire ni kii moo goog xale bu ndaw fekk ko sol garam bu bam defi yëfam tudd àkkantelee sëriñ Babacar si kii li muy wax fan la ko teg ma bëgg a xam kooku laa bëgg nga tontu. Cheikh Talla man sëriñ si mu si gis nga baatin borom bi mooy seet la ko neex mu jox ko waayam. Famaasa akaana wamaalam yasa waaye borom faxalu li maa yurit borom bi lamu na mu ci ak namam jox na ko sëriñ Cissé mu sëriñ Babacar Sy kooko ku am looy wax dangay wax ak yàlla yàlla mooy yëkkati la ko neex jox ko waayam jox nanu te ñoo ngi jox ñeneen nag ñun ci dooley borom bi si kàttanul yàlla Seex Taal jërëjëf dañ koy nangu ndax sëñ Sambay nangu nañ ci ay kàddoom mu ni baatin ak butin ñooyam sagoy borom du ko génnee kon loolee lu am solo la bale boobu ndax tey jii moo moom ngay fajal rab ñi ngay fajal rab ndax ñi nga xam ne dañuy wax ne rabaleen jàpp ba mënuñoo am borom kër wala mënuñoo dugg wala mënuñoo def dara lu baax ci àdduna te ku ci jokkoog sëñ Cissé bu noppee fi ne sant yàlla bay joxee ay teraanga bale booboo koy saafara wala dafa leen lu koy saafara. Cheikh Talla borom kun moo man borom kënu. borom kun man borom kënu. te gis nga booy weddi baatin. sëñ Mansour nee na baatin feeg mantu jéggi frontière du baatin baatineen la. te man dama bokk ci li nga xam ne moom bokk naa ci ñi man moo ma dimbale ci ndimbal loola nag la ñuy yor soxla sunu jaral tëju juróom-ñaari fan wala ñetti fan soxla su réy na jaamu yàlla ak noo mën a toll ak koo mën a doon rabal a jàpp dalay yàqal wala dalay dimbale ci ban façon nga bëgg rab bi nekk nañ ci waxtaan buñ ci waxtaanee borom bi dalay dimbale ci saaxir ak ci baatin bale bee koy faj wala nàkk yee koy faj wala kurus yee koy faj li la dal wooma rek bañ xam li la dal xam nga gars yi dañuy départ jinne di naw jinne jinne du dara ay rawxaan du dara loo mën a joxañ sa baaraam ne ko kii yaa koy yàqal bul ko yàqalati xam turu sàngam rab nag damay dégg gaa yi naan dañ lay dëdd léegi rab déedéet kullu nafsul saa yiqatul mawti waaye kullu man alayha faanin gis nga ni nga ànd ak sa taq ndeer bii di dem noonu la borom bi mooñaaleel ak say rawxaan ngeen di ànd di dem benn rawxaan dina ñëw ànd ak yow mu bëgg lii te xamula ko ngay def lu mu bëggul umpale nga ko umpale nag mooy waral nga woo Serigne Cissé ne ko sama rawxaan bii lan la nangu ak lan la bëgg soow lay laaj wala deret lay laaj walla ndox lay laaj wala lan lay laaj danaan la perturber sa alal di yàqu danaan la perturber mënoo yor dara lan nga war a def Serigne Cissé wax la ko nga def ko rab noppal la nga am jàmm waaye rab ki bu la dëddoo yaa ci biir suuf nanu seetaan xam-xam yi qul waye ilay annahu sama nafaru minal jinni fa xaala inaa sammina quranu hajjaban yahdi ila rusdi fa amana bi walam nusrika bi rabbina ahadan wa innahu taala jaddu rabbina ma ittaxasa saahibatan wala waladan wa innahu kaana yaqulu safihuna ala laahi satatan wa inna sanana alam taqula insu jinnu jinne lu am la waaye pouvoir bi ñu koy jox la yorut ndax doomu aadamaa ko gën a foor fuuf kon ñi sàkkitoo jinne am na lu gën a màgg jinne léego-léeg ma toog dégg ba kenn ne sam deena ma ne ko kii xamul lu muy wax mu ngi yëngal réew mi te Samhorosine du turu jinne tur la woo xam ne ku fa toog yaay Samhorosine Cheikh Talla bu toogee ci kii bi Macky la Macky Sall la tudd la waral président mooy bi mu tekkee président la tur wa sensé wu léegi Samhorosine kon nañu bàyyi pouvoiru jinne bi ñuy joxe ci réew mi te jinne du dara donte ne am na jinne mën nga ko fekk mu ne ci ki nga tuubloo ko tolluwaayu nit ki la mu fekk mu yàqal li nga fexe dootul ko yàqal waaye dinaa la tàggalee rab erreur gënu koo ngand ci réew mi nanu seetaat xam-xami Cheikh Talla jërëjëf Serigne Cissé mu Serigne Babacar leeral boobu am na solo ndax fi mu ne ñu bëri dañuy jaawaatle naan rab rab dafa am jinne dafa am tan man nee naa leen fi ne li alxuraan wax mooy jinne moo am olof moo koy dàq tuddee rab waaye da ngay gis ne tey tey toog fi mu ne punkal mu toog naan la waaw nag rab rab wi boo ñëwee ñu dindil la ko wala ñu boole ko suñu jinne yi fi mu ne man nit ñi ñi ngi jaxase rab mooy jinne quoi tur yi ñoo différencié wu am déet ci sama xam bu gaaw su arab ak olof la rawxaan arab li ñu moom ñun tey bu ma ne woon dëmm réew mi yëngatu tubaab ne vampire langage yooyu lay jël fexe ba nëbb suñ bos fësal yeneen yi lii rekk la lii ma la wax moo ci nekk ndax rab mën naa fekk koo xam ne defe naa ne loo gàtt gàtt tànk dégg nga ne diw dama foog ne alalam ji jinnee ko koy jox rawxaanam da koo nangul te lam ko nangulee sarax la nu def wala saafara la nu def ba mu nangul ko looloy question bi waaye duhut xànc gi boo ko fasee nangam man li sëñ Mansour waxoon laa gëm sëñ Mansour nee na fi rawante bi nekk mooy dangay fekk Seex Taala ci kër gi ñu ñu koy xas 24 heures lu tax ñu koy xas mbubb mu woyaf nga fexe ba def sëñ Taala milliardaire man lii laa gëm waaye du concours ji néegram jërëjëf Serigne Cissé amati na solo ci leeral boobu ndax euh, dafa toll ci jamono foo xam ne faaw ñu leeral ndax euh, dóor marto yi dafa bëri coow li bëri ci Serigne si te il faut yéen ñi nga xam ne yéen a ci nekk yéen yéen mën a leeral mbir moomu bokk na ci li nga xamante ni wax dëgg yàlla mooy ci question yi nga xam ne préparé woon naa ko ndonte lépp du fi xaj kayit mbirum kayit tukkeeg yu mel noonu pouvoir bi nga ci am wala secret bi nga ci am jinne sëñ Mansour yi ñoo la si ci loolu wala lan la nan la demee dëggantaan man dama bëgg xam secret yi dóor yi dafa bari mais secret yi la ñu war a xam tey jii ba xam fan la ñu war a mën a jaar. tàndarma loo ci xamoon bu nit ñi wooree ba ngoon jot ñu ne indi leen ñu dog yënga ne danga nga ci faj aajo yi nit ci saay rek ci baatin. tàndarma am na siru boo cee liggéey ci latif bu dee ministre la day gën a yéeg bu dee kii wut yi da koy am. bu dee ki bëgg a jëkkër da koy am et cetera et cetera ba la mu bëgg ci latif lañ koy liggéey ci tàndarma loo ca bëgg borom bi defal la ko kuy làmbi leneen dangaa ngaa xamul sirul turu kuy tiitaroo leneen da ngaa xamul turu yàlla waaye ku xas ñam turu yàlla xam la ca nekk wallaay lu waaye mën a tudd sa wen nga xeeb ko mooy lii ma la wax lii rekk la tudduma jinne tudduma dara turu yàlla lay tudd sa mbir di dox saa su si ngay tàkk te dootoo fay yeneen yi ci des mën nañ laa taxal tey lijjanti la tey dépasse waaye suba doo am dépasse turu yàlla nag mooy la lijjanti sa dund fii benn fii benn fële moo waral këyit yi di ñëw moo waral alal ji di ñëw moo waral jëkkër yi di ñëw moo waral doom yi di ñëw turu yàlla la du jinne kon daal su la déggee bu baax alxuraan daal moo yéefi ndax ahmadul xadim nee na kitaabu rabbi kaana lii wa kontu walillaahi bihi sakantu walillaahi bihi sakantu gis nga téereb yàlla bii ku ko xam warmaal ko kenn du la gis yërëm la yow yaay wéy di yërëm gaa di leen dimbale keneen kuy gis na muy woote beneen pouvoir mooy faral di am problème waaye téereb yàlla bii bii seextaal ku koy wétalikoo ñëpp yaa leen di dimbale moo waral ma wax la lii ma la wax Cheikh Talla. jërëjëf si Cissé mu sëriñ Babacar amati na solo lool lool lool xam naa ne ñaar yi ma ko bëgg a wàccewee rek benn bi moom dama koy tënk man sama bopp gëm naa ni alxuraan yemut ak dara ci àdduna léegi ki nga xamante ni njabar da koo jàpp ndax am na fi benn borom góomu robaale boo xam ne bi muy ñëw man maa la booleeg moom. dañ ne ko woon góor mu robale la moom mu jóge ci àll Casamance yee ñëw seet si la te bi mu la seet see fi mu toll nii man su ma la nëbbul am na teraanga jub ma yónnee joo xamante ni gore moo tax ko wax waaye su ma neexoon doo ko yëg ndax waxu la ko xam nga ko saafaraayee moom. xam nga Cheikh Talla bi ñuy wax. la yastaxli fannahu jàngoro jum mën a doon ci sa biir yaram am na lim boo koy bind luñ la mën a def ci àdduna nag laa la wax. bu dee kii fas la bu dee ki yor ay xàmbam la bu yoree bu dee ki yor ay yu ñuulam la di daaj la saxli yastaxlifannahum am na loo koy bind lu mu fekk ci yow dindi ko wér force nag incha allah si kàttanul yàlla ak daraje alquran Cheikh Talla jërëjëf njëriñu sarax laa bëgg nga xonq ko parce que dama gis nga dajale fi ay sarax yu am doole yoo xamante ne nii man bi nga koy dajale damaa defoon da nga am xew-xew waaye bi ñu paree ma gis la nga jëm ak moom ne ay sarax la yoo war a génne ji may laaj njëriñu sarax lu mu doon ak tolluwaayu sarax boobu noonu ci lan nga ko doon jëmee ba tax nga saraxe lu toll noonu. dana dee bëgg dara sànq ak dimanche mu ciy dox fekk benn mbire ko baare ba mbir ma demul mbir ma ma nag sëriñ Cissé borom bi dimbale ko ku ne ko aloo mu xam lan mooy say sarax sarax yooyu lañu lay toppal ba borom bi wax ñu ko ñu démbale la génne la ko sa borom def say mbir lépp baax Cheikh Talla yooyu nag mooy yi ngay gis ñuy génne ndax nit ki nee naa la loo gàtt gàtt xam-xam war ngaa fexe boo jaaxlee lan nga war a génne loolu nit da ko war a xam mooy kon yi ngay gis ñu koy génne di ko def yooyu rek la pour soxlaay doomu aadama yi waaye du leneen Cheikh Talla. macha allah sama man bi de boo ma waxoon ñaari baat ci moom ndax xam naa ne moom mi jàkkaarloog yow xamu la am na loolu mënu ko wax askan wi ndax bu yàgg bu yàggee ñu ne maag yow danoo kompaloo boo ma waxoon ci moom ñaari baat ci sarax bu mu war a génnee ndax man am na lu may gis ci moom daaw ma baatin. waa xam nga Cheikh la ñii nituk média moom dafa am saraxu boppam. te mbir Cheikh Talla man ji jamono moo xam ki gëm ak ki gëmut man bu nit ñi xamul ki ma doon man xam naa ki ma doon man sëriñ si mu sëñ Babacar nit ku ne nag am na lu mu war a génne bu dee nit ki yëngu ci média ak ki mën a doon am na lu mu war a génne Cheikh Talla waaye basaar de xam-xam baaxul mu mel ni fa la ñuy wàccee suñuy kàddu nag waaye xam-xam duñ ko basaar de duñ ko basaar de duñ ko basaar de waaw waaw waaw waaw. jërëjëf sëriñ Cissé mu Serigne Babacar ci waxtaan wu am solo bi dafa am càngat loo xamante ni damay dégg gars yi di ko wax ma ñëw fekk nga tiim këyit yoo xamante ni nii nee nga ma benn bu ci ne lim bi maanaam tolluwaayam bi nii càngatu benn nit la ma bëgg a xam càngat càngat lu mu doon. nga yëkkati ko nga wan ko li may wax ñi ngi jàkkaarloo moom da nga ko yëkkati nga wan leen waaw. Euh, euh, man man man la Serigne Fallou waxoon rek laay wax. man sama àdduna leen rekk si laay dox mucc ak mos kuy yàq bul ma xam lii ngay gis ma téye mooy fatxan dara taxu ko dog lu dul fatxuk doomu aadama ci wubbeeku ci saahir ak ci baatin kon Cheikh Cheikh Talla borom bi li mu dogal ci sëriñ Cissé mooy ne jaamu yàlla yaakaar nañu la bëgg nañ aaju yi di faju nan lañuy def ba muy faju ma ne la mucc ak mos moom nga gis ma téye nii te ku bëgg a raw say maasin nag noonu rek ngay daal di def sëñ Fall nee na koo fi dégg ñu naan diw rek la muy diwoo tax ba ci man Fall lu muy di wax ak yéen waaye fo sëñ Fall di diwoo ñeneen ñi fu ñu jëm. Cheikh Talla wa axiru dahwaana an alhamdulilahi rabbil alamin wasalaamu aleykum jërë ngeen jëf. jërëjëf Serigne Cissé mu Serigne Babacar ci leeral bu am solo bi waaye ci waxtaan wi tam waaye ñun bu ñu paree moom nga jox ñu ñu nit ñu yóbbaale lu nu diwoo incha allah da ciy baax wax dëgg yàlla la ñuy def gërëm ko ñaanal ko yàlla suñu borom subhanahu wa taala mu dolli koo taxaw dolli guddal fanam gën a wéral ay cëram ba mbooleem yéene yi nga xamante ne naalal na ko askan ko ci moom rawatina soppe mi nga xam ne dafa bokk ak ñoom kër muy waa kër seex seexal xalifa seexal islam euh, sëriñ Babacar si euh, ñaanal leen ñoom itam kenn ku ci ne la muy la ñuy yaakaar ci moom yàlla na yàlla sama borom jàppandal lépp ci daraje yonent bu tedd bi salaatu wasalaam barkepp Serigne Babacar Sy radiyallahu anhu waaye sant tam bu baax a baax téléspectateurs yi nga xamante ne ñooy topp télé bu rëy bi nga xamante ne mooy Dakar People di leen wax ni kenn ku ci ne fa mu nekk lay bëggam ak yéenam ak mébétam yàlla na yàlla sama borom jàppandal lépp ndax gannaaw moom moo am moo sañ moom mën te du jeexal dara yàlla na yàlla jàppandal lépp jox leen dig daje incha allahu rabbi taala ci beneen